dañoo yàgg dañuy wax WhatsApp waaye ba tey mënu nekk mooy ma mooy ma daal kaa la. ana ma maa ngi nii. présente présente waaw mais nuyu naa leen. ñu ngi lay fay Mina comment tu vas. je vais très bien alhamdulilah. Oh, c'est un plaisir de retrouver tes trop belle toute belle guys. ah bon. li li ne ci li ci biir li ne ci ginnaaw caméra bi. voilà moo daax li ngeen gis de. ah lii de alalu la de. <laughs> alalu xataab moo nekk nii. très bien mais namm naa leen gis naa leen ñoo la raw. yi all si ses. bi ak dib waaw. bu euh, suñu maman Mounas. ñu ciy profité di ko nuyu sax di ko ziar. vraiment di kontaan ci yow on est très fiers on te suit comme d'habitude tu assures di ñaan yàlla euh, gën ñu may fekkee ak tal affaire yi gën a jëm kanam di ko ñaanal Sénégal yëpp. réew mi toll na foo xam ne ne tey balaa ma leen di laaj déjà seen relation ak Fata mhm. euh, toll na foo tey macha allah liggéey ngeen liggéey boo xam ne ne tey dara du wala lu bëri tey du xew ci réew mi te doo leen téye micro présenté ba mariage bi ñu nekk nii tey macha allah yéen a war a présenté euh, marié yi loolu la leen di def euh, c'est un plaisir mais c'est au-delà de tout un fruit d'un travail parce que yàlla dafa def ne dañoo teel a dugg ci milieu événementiel ay xale lañ mais dañ ci teel parce que biñ nekkee xale lañ ko bëgg gëm ko xam ne buñ ko liggéeyee dina def effet donc euh, ñuy ànd ak ay nit yoo xamante ne euh, dañuy euh, aider à ce que loolu fasse bien notamment celui qui se marie aujourd'hui muy Fata parce qu'au-delà de l'aspect professionnel on est plus que tout des amis il, il, il a cru nous avant tout le monde mais li tax luy am Sénégal rek loolu la nit ñi di wax ñu teg ci suñu loxo c'est parce que xëy na nit ñi ñoo gis liggéey bu rafet bi rek ñu wóolu ñu ci parce que nit moom moo xam nga doful euh, buy def business am ku koy doxal la ci àndal donc bu ñu ñëwee Cessno c'est avec un plaisir que lañ ciy ànd ak ñoom pour affaire di jëm kanam la rek la. Mhm. en décembre su ma juumulee da doon def euh, fi nga xam ne ne moom mooy euh, ci stade bu mag boobu stade Ngalandou Diouf su ma juumulee. daaw defoon ngeen ko suma juumulee. dëgg la ren mbaa bu baax. ñu ngi koy waaj yoo nekk seen wala da ngeen ñu ñu ngi koy waaj bu baax a baax a baax parce que comme ni nga ko xamee euh, rendez-vous la te ku ne rendez-vous li ngay ñaan mooy mu nekk loo xam ne c'est pérenne donc aujourd'hui euh, l'objectif c'est de le faire chaque année l'année dernière c'était magnifique avec euh, Rufisque suñu dëkk foofu nga xam ne lu ñu song ñu ànd ci ak ñun donc ren incha allah ça va bien se passer et on est di préparer comme d'habitude beneen show bu graaw parce que chaque année niveau bi day gën a yeeg te ren nag moom am nañ envie def loo xam ne mësaguñ ko def ci édition yëpp donc ñu leen ciy xaar di ci xaar waa Sénégal di ci xaar euh, waa Kawteef di ci xaar euh, Mina di ci xaar sa organe de presse yi ngay liggéeyal yëpp di ci xaar waa Tëngéej te dañuy ñëw parce que nekkatul suñu yëf seen yëf la ñoom donc vraiment ça sera bien donc di leen jox rendez-vous le 31 décembre di leen wax ñu waajal ko tamit mais mbaa xeebu leen seen jongama. béy di béy dina a image yi sànq li ngeen wëndeelu. waaw may nañ ko am solo. waaw may ngeen may ngeen ko lu am solo wëndeelu ngeen jongama bi nu mu demee noonu da leen daboo la da ngeen koo doonu. <laughs> doonu la ak entretien c' est important <laughs> bi billaay le sport c' est important. doonu la ak entretien donc ay jigéen la ñun ñëpp et euh, on sait prendre soin mais comme. gis nga jongama ni waaw kon nice sama sama dernière question bi may tëjee rek mooy euh, ñu nekk ay ndaw ñu ñëpp <laughs> euh, ci ginnaaw tuuti réew mi xawoon na yëngatu waaw macha allah mais nii dal na kenn xamul lan mooy ñëwaat ñu ngi ñaan jàmm mais en tant que ay jigéen déjà ngeen nekk ay porteur de voix mm-hmm. tey boo leen amoon message boo leen di lancé à l'endroit des lan lay doon gis nga Sénégal balaa nga xam ne jàmm moo neex dara xew ba affaire yi redevenir normal da ngay gis ñi ni ñuy soulager da gis nit ñi ni ñuy reprendre seen activité da ngay gis jàmm bi am Sénégal loolu lañ xam donc di ñaan rek li fi xewoon yàlla musal ñu ci parce que ay erreur la woon je pense que euh, ni président di doxalee ak acteurs politiques yi actuellement ni ñuy doxalee ñoom ñëpp reconnaître nañ ne jàmm lañ bëgg te ñoom ñëpp ñu ngi def à que la paix demeure au Sénégal donc di ñaan rek yàlla euh, euh, loolu bañ fi mës bañ fi jóg en fait parce que euh, loolu lañ xam donc euh, ku nekk am nga droit bokk fu la neex donc bu ñu bu kenn ne kenn amoo droit bokk fenn parce que loolu bu ñu demee ba dëkk toll foofu rek ça veut dire que ay frustration peur phobie euh, la peur de s'exprimer de s'exposer day am te Sénégal warul yegg niveau boobu aujourd'hui on est en train de battre des records en termes de démocratie en termes d'innovation, en termes de réalisation. Et on est fiers de voir le pays arriver à ce stade comme ça avec le président de la République. Donc ñu ngi ñaan rek jàmm am Sénégal xale yi xam ne luñ bëgg nañ leen bàyyi ñu def lu ñu bëgg yàlla moo xam kuy falu ñu ngi jëm ci ay élection ñun ñëpp xamuñu kuy président te pourtant ñu ñëpp bëgg nañ kenn nekk président donc nañ ko teg ci loxoy yàlla et incha Sénégal réewu jàmm la te xam nañ ne incha allah ci li ñuy jëm ci jàmm lay doon wax ji rafet na looy tàggatoo ma am na dégg am na. am na teggin am na teggin d'accord. Euh, comme d'habitude rek c'était un plaisir de nous entretenir avec vous. Sénégal et euh, kaw euh, Kawtef na ñu ñëw fekk leen suñu mariage frère muy Fata di leen di ko ñaanal jàmm une réussite totale ci li nga xamante ne moom la sëmb. une mère xam nga ne mariage moom la nit gën a bëgg ci àddunaam yàlla nekk un le début d'un merveilleux commencement et euh, à très vite Sénégal Kawtef dans de nouveaux défis. ñuy waajal mariage jumelles yi. du ma wax nag mais ci kanam. Ah,